Э, muy dars bu jëm ci tarixa Cheikh Ahmad Tijaani radiallahu anhu téere bi comme ni ngeen ko xamee Seydi Alin Harazim radiallahu anhu mooy ci ko taalif ci ndigalal sëriñam muy Mawlana Cheikh Tijaani radiallahu anhu tey nag bi suñu fanweeri dars ak ñaar ñu nekk ba tey ci firi aaya boobu يونتبي صلى الله عليه وسلم تنجرم وخلصنكو قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله يوم يرتير بما يرمو يتخفيك لي أسلح تجاني عن في تدف يجيزه يكذي فاز 274 ني وحني تكميل لما تقدم من تقسيم مراتب المحبه ci lii ab mottali la ci li nga xam ne jiital nañ ko ca martaba yi nga xam ne mbëggeel am na ko moo xam mahabbatullahi la alal xalq wala ilal xalq wala mahabbatul xalqi ilallah mbëggeel bi nga xam ne yàlla bëgg na ko jaami wala jaami mbëggeel biñ bëgg seen borom mboolem martaba yi ci am tudd nañ ko ci ginnaaw nee na nag lii takmil la mottali la aw mottali la ci martaba yooyu wa ahluha alladina sabaqu fi sadri l mu ne ñi moo martaba yi mooy ñi nga xam ne ñoom ñooy feeñ ci njëlbeen ak aaya bi qala sayiduna radiallahu anhu mawlana Cheikh Tidiane radiyallahu anhu wax na ni mahabbatullahi ala arbaati maratib mbëggeel bi jaam bi di bëgg yàlla ci ñeenti martaba la yooyu nag bi ci mooy mahabbatul iman mbëggeel woo xam ne dafay jaaree ci gëm di jaam bi di gëm bawam tabaraka wa taala te imaan comme ni ngeen ko xamee lu ñuy fas la ci xool mu sax ci xool yi cër di ko jëfee mu yokk ci topp yàlla waaye muy wàññeeku ci mooy kon ku bëggee sa imaan di yokk faaw nga nangoo topp yàlla ku bañ rëcceeku ci sa imaan faaw nga moytu mooy yàlla te martaba bi yaatal nañ ci lool ci dars yi paase muy mahabbatul iman eh, ñaareelu martaba bi mooy mahabbatul alaa'i wan naama mbëggeel boo xam ne dafa aju ci ay may ak ci yoo xam ne ñu boroom subhanahu wa taala daf koy def li xawaasil muminin ñeel way jagle yi ci way gëm kon mooy ñooñu yàlla di wax ni la in shakartum la azidannakum bu ngeen ma sante rek ma dolli leen loolu yi tamit yaataloon nañ ci lool ñetteel bi mooy mahabbatu sifaat mbëggeel woo xam ne dafay jëm ci melaw yàlla ji wa ahluha humul musammuuna inda al ammati al awliya ñooñu nga xam ne yegg nañ ci mbëggeel googu bëgg yàlla ndax ay meloom ak i taaram ñooñu lañu tuddee ci àmmatu naas al awliya muy wali yàlla yi wa humul aktharuuna fi nafi lil amma mooy ñi nga xam ne ñoo ëpp njëriñ ci àmmatu naas wal martabatu rabia ñeenteel bi nag hiya mahabatu zaat mooy bëgg jëm yàlla ji moo ci gën a foor wa ahluha humu siddiquun ñi moom mbëggeel loolu mooy siddiquuna yi waaye nag dafa am fuñ koy amee عند الصحي والبقاء بنيوم ماندي في تيب يالله بوري في لن يخامي أجر يالله وقد تقدم الكلام عليها لي جيتلون ننسي أي وخمنا وخون ننسي ياتلون ننسي كدل كدر في جناو نين كي مرتبة يب ليرلون ننكفا من وبقي الكلام على محبة الصفات محبة الصفات لن ليرب لتوان كدر في يب التي هي مرتبة الأولياء وأهلها ذأبوا على خدمة الله تعالى والتوجه إليه بقلوبهم لأجل ما هو عليه من محامد الصفات من بجي لي جم تنا لو يا لي مو بجي لي هي مرتبة الأولياء مو جرات ولي نتاها ونتي جرات بوبو نيوم سن آدات سن تسان مو خدمة الله دير يالله كي جبلوكو كي سيني خل لأجل ما هو عليه من محامد الصفات جبلوكو كنك موي تلن صح كي جسنت يالله كي أي ملون جرحب إلا النعم تعلقوا بالصفات الفعلية كالخلاق والرزاق والوهاب إيه ما نعم ملو يوين نعم فوق waaye ñu ngi aj seen melo yoo xam ne melaw jëfi yàlla yi la du mel ni yàlla mooy aji bind mooy aji wërsëgalik mooy aji maye wa amsaaluha aj yu mel ni ñoom fa huwa fa hum multaxiquuna bi taaifati saaniya ñoom mën nañoo jot ñi nga xam ne ñooy ñaareelu kuréel ñaareelu kuréel yi mooy ñi nga xam ne ñoom seen bëggeel mi ngi jëm ci mahabbatul wa naama إلا أنهم أرفع منهم ومنهم طائفة تعلقوا به خمنا سبنين كور البوا خمنا دنيو أجيسي موم لما هو عليه من صفات كرنه لخلم لامبول ما هم دنيو أجيسي حبة الصفات لخلم لامبول أي نلو تردنجا ومجيه أترانجا وحمده أتسانتا فهؤلاء أصحاب التعلق بالصفات ني ني أجسن بجلجي إن يلا إلا أنهم معهم بقية من ملاحظة الأعداء هنا لدود نرك دفن لن ستنتل أو خمنا ننكو ورا ستنتل ماي نيا خمنا نيتوكي منه يلا سبحانه تدنا وسلم وتعالى تكوين وهو ضرب من محبة آلاء الآلاء والنعم لولو أو خير لكي بجي li nga xamne moy mbeugel di jaar ci وطائفة كرلين تعلقوا به ودأبوا على خدمته بما هو عليه من الصفات الذاتية كرلين لنو أجتمام آدو ديكو خدمات جر لم لم بولش أي ملو جمم لمني الكبرياء ري والعظمة أكمل والعز التد والجلال أكمل والعلو أكبر والمتعلقون بهذه الصفات من أجل نلويو محبة محبة من أجل نلويو تنبجل وخدمة أجلية معهم رسخة من محبة الذات فإن هذه الصفات فإن هذه صفات الذات الأصلية فلا حظ فيها لمخلوق ñi nga xam ne seen mbëggeel ñu dundu mbëggeel waaye dundu xidma woo xam ne xidma woo xam ne dafay e, jur mbëggeel buy jëm ci mbëggeelu jëm yàlla ci ndax melo yi ñu tudd kibriya adama ayzu jalal ak uluw loolu jëm yàlla ji moo ko melo ay melow cosaanam la fala xazza fiha li maxluuqi bindeef amu إنما الصفات التي يكون بها مفيدا لخلقه هي اللطف والخلق والرزق والهبات والعفو والكرم وأمثالها ملايين خمنة يالله دف كوي ببل في جن ديف دي موينيا وانتا أقلون تبي خلقه أك ورثك أك ما يملاي ما يجيجل جملاي جيجل ترانجا جملاي دفع أبي من نمام فالمتعلقون بها من أجل mutaalibuna bi ataa'ihi wa mannihi ñooñu ñooy sàkku mayab yàlla ñooy sàkku yi tamit xéewale yàlla wal mutaalliquuna bi sifaati zaatiya ñi nga xam ne nag seen lépp dafa aju ci melaw jëm yàlla ji lam yuridu minhu shay'an bëgguñu ci yàlla dara misl al azama lu mel ni ak màgg wal kibriya ak rëy wal izzi ak tedd nga wal jalaali ak màgg والعلو لأن هذه الصفات نختم ملوي متى برزت للعيان انتحق المشاهد تحتها للقهر الذي يلجو ملو يلي مي عظم كبرياء وعزو تاي تيني في جام بلاتي دفعي فرمبولم لندن تيري تموم دخ جن يلي جريك مي تحاوتي عظمتهم أكي كبرياءهم أكي عزتهم أكي لنخمني مي جلالم أكي علوهم bu ko defee nag bi amoon labal ko ci biiram fa innahu laa yutiqu ahadun min al xalqi mutalaata azamati ndax amul benn ci mbindeef yi koo xam ne attan na di januk màggaayu yàlla ji wa jalaalihi ba tey màggaayam wa uluwi ak kawem wa kibriyaayu ak réyam wa izzihi ak wa yamxaqu yasxaqu wa yamxaqu almashaahidi taxtaha moo tax melo yooyu saa yu taxawee rek dafay far effacé mboolem seedu yi topp ci ginnaaw falaw suila almutaalliqu biha masalan maanaam ci dem ba aju ci melo yooyu suñ ko laajoon ne ko limaza taxdum rabbak wa taqta ilayhi lu tax ngay diggéel sa borom ba pare di dàcc ci moom wa tanqati ilayhi qaala day tontu lima huwa alayhi min alazama walkibriya laa liyanaalani minhu shay dama koy xidmaal topp ko ndax màggi gim màggi ak rëy gim rëy defuma ko maanaam jaamuwuma ko bëgguma ko ngir jot ci moom dara fa inna maahum rasatu mina mahabbati zaat ñii nag ñoom ñoo am cofeel maanaam ñoo am cër ci li nga xam ne mooy mahabbatu zaat wa baada hada mahabbatu zaat ginnaaw xeetu mbëggeel gi nga xam ne mooy mahabbatu sifaat muy sifaatu zaat bi ci topp mooy mbëggeel bi jëm ci jëm ji te mbëggeel googu siddiqina yi ñoo ko moom wa min wara wa min al mursalina wal malaika ak ña leen féete kaw ci mursalina yi ñun ak malaika ak anbiya uyeg ak saabi summa qaala radiallahu an mawlana sidi ali xarazim ne topp nag moom cheikh tidiane radiallahu anhu wax ni wa bayaanu tadrij fi hadihi al maratib al mazkura leeral yéeg yi yéeg ci martaba yooyu ñu tudd fa saahibu mahabati l iman mu ne ki nga xam ne dafa nekk ci mbëggeel ak iman ida daama tawajjuh ilayha biha ila allah su saxee ci mbëggeel googu nekk ci ba pare jublu ci yàlla wala dama qalbahu zaari xol yi aju taqoog jublu gim jublu ci yàlla intaqala minha ila mahabbatil alaat dafay toxaloo maanaam day def tadarruj jógee ci mahabbatul iman jëm ci mahabbatul ala ci annaha minha ndax moo ci taxaw nag ci mahabbatul ala wa ni'ma moom bu saxee ci loolu ak ci xolam jublu yàlla ci xolam eh, moom itamit dina dem ba yegg ci mahabbatul sifaat فانتقل إليها حينئذ وهي أعلى منها متخوش محبة الأعلى والنعمة جمت محبة الصفة من خم نمو غنا بوه وصاحب محبة الصفة برم محبة الصفة إذا دام التوجه بها إلى الله تستخيك محبة بوه جبل الله واستقام خيره دخم نجب وسلوكه صوب مت انتقل منها إلى محبة الذات dina toxoo ca mahabbatu sifaat jëm ci mahabbatu zaat wa hiya aala ndax moo gën a kawe wa hiya algaayatu alquswa te itamit mooy daytal bi dëggi dëggi daytal mooy càkkutéef bi ci dëgg wa mata wasala ila mahabbati zaat jaam bi saa yi yëggee ci mbëggeel bëgg jëm yàlla ji aami annahu yasimu raihatan minha mu ne li ma ci namm waa ji saa yi demee ba am bakkan cukkat ak xam yàlla ila fana ila dafay jeex dafay ci li ñuy tuddee alfanaa martabatan maanaam jeex ci baada martaba ci grade par grade maanaam daf koy def tànk nang fa yakunu amruhu awalan zuhula njëlbeen ak mbiram mooy faddu anil akwaan faddu mbindeefi summa sukran topp mu mandi ci sangarab mahabbatu summa gaybatan topp mu faddu wa fanaun maa suurihi bil fana ginnaaw gi nag dina jeex jeex goo xam ne dafay ànd ak yëg ni moom dafa jeex summa ila fana il fana ginnaaw gi mu jeex ci jeex mooy baqaa'u wa huwa annahu lam yaxis bi shay'in suuran ne moom kat yëgatul ci yëgatul dara ci jeexam wa tahammuman amul benn mébét وحسا ديك واعتبارا أملن لمي كونسدر والغاب عقله ووهمه سلام لين مر دم ولم دون جم جم لب دم وانسحق عدده أي لمم داري فرو وكمه كمم داري في الجوجة فلم يبقى إلا الحق بالحق للحق في الحق درد في دسل الحق بالحق في حق يالله كبير دير يالله lil xaqi ñeel yàlla fil xaqi ci yàlla wa huwa maqaamul fatxi wal bidaaya te loolu mooy maqaam ak fatxu mooy maqaam ak njëlbeen ñu bari nag dañuy foog ni ku am fatxu rek am nga loolu moo sànq ñu bari dañuy dem soobu yoon ak tarbiya ñu leen am ngeen fatxu rek yaakaar ni am nañ xam am nañ xam am nañ lépp te fekk bidaaya la rek bàyyi wax na ca sirul akbar ne fatxu موي باب المعرفة لول شهتجاني رضي الله عنه دواها في رج وهو مقام الفتح والبداية بي موي مقام الفتح موي مقام يا خم نكتي يجي أمنا فتح واي فتح بوبو بداية لنجل بيرنا يعني بداية المعرفة لنجل موي جل بينا كم الله وصاحبه برم مقام بوب إذا أفاق سايوره min sakaratihi ci manditeem gi yaxudu fi taraqi wa saudi fi maqamat ila abadil abad bila nihaaya ku sóobu ba am jazbu boo wuree da ngaa war a sóobuwaat sóobuwaat bi nag ci ngay yéegee ci maqaama yi ba keroog abadal abad bila nihaaya ci duur jeex loolu lay aarif yi di wax ni man saxat bidayatuhu saxat nihaayatu loolu la wax nii tamit say ak sayru ilallah dox jëm yàlla am na am na fu mu yem yàlla teeral nga wa anna ilaa rabbikal muntaha waaye nag booy sayru ci biir jëm yàlla ji amul nihaaya amul fu mu foofu moom da ngay dox rek ba këram ngay dee tanbihun wa bayaan lii ak yeete la ak leeral في الاستدلال على أن الكفار محبوبون ومرحومون في تكتلوني يلا موم كو بغي نيفيدي لا واي كولين يرم لا كما سبق في شرح حول في شرح قوله تعالى كم من كو جيتالي سين في الباب بني سير كولين كنتم تحبون الله ا إيه، مون با فما لا شيخ جاندي وخيني الى ان قال وهذه المحبه لمبغيل جميع العوالم حتى الكفار ñeel na mbooleen bindee fi ba ci yéeféer yi fa innahum mahbubuna inda ñoom yàlla bëgg leen loolu nag moom lay indi leeral qaala radiallahu anhu mustadillan ala qawli moolana cheikh radiallahu anhu wax na di tegtalu di ut tegtal ci wax yooyu mu wax altahaaratu tahaarataan laab ñaar la tahaaratul asliya wa tahaaratul ardiya سهارة بوخم أصلي لا موي سهارة كسار بنن بكدس موي لاب بوخم جار جار موكي ورا منت فالسهارة الأصلية لا بس هي في جميع الموجودات جملة وتفصيلا لو لن يبقى يوم موخم جلي دولة هي خير لا موخام لمن تدور منزعها ومجتبها ولم ومجتبها من سر اسمه القدوس فإن اسمه القدوس متجل في كل ذرة من الوجود والقدوس هو الطاهر الكامل من جميع النقائص نانا لول لب ممكن جليكي موتم ترم li ñuy قدوس نخ ndax quddusu moo def tajalli dara ci wujud bi ci bépp mbindeefab yàlla te kuddus li muy firi mooy attaahirul kaamil ku laab ci tamat set wecc min jamii naqaais génn ci mboolem manqué manqué yaqulu fi la asmaai idrisa neen wax nañ ci asmaul idrisiya muy ñaan gu am solo yaa quddusu taahiru min kulli suuin fala shay'a yuaazihi من جميع خلقه بلطفه فما في الوجود إلا طاهر كامل لتجلسه القدوس على كل ورى wax nañ ci asmaul iblis ya ne yow quddus yow mi nga ne yaa aji sell yaa aji set walees bépp amul lenn loo xam ne di maanaam amul kenn koo xam ne dina lott dina yokkat ci jëriñoo yow sa sa sa sa ñeewante yow yàlla fama fil amul len lu nekk ci nekkitee fi illaa taahirun kaamilun li tajalli ismihil quddus ala kulli dara lu duhut ni rek moom lu mat la ci ak laab dafa mat ak laab ndax turab yàlla bi ñuy wax qudduusu tajalli bi ci moom fa kullu ma xalaqahu lépp lu yàlla bind tajalla fi bismil quddus yàlla ko feeñee ci turam yi ñu tuddee fa law waqaat tanjiisa fi darrati min al wujudi la waqaa naqsu fi sifatihi al kamal bu fekkoon e, sobe dafay laal benn zarra ci nekkiteef bi maanaam benn mbindeef ci mbindeef yi konoon dinañ konoon ni mbindeef moomu dafa manqué te te nag mbindeef moomu melow yàlla la kon bu boobaa nag naan melow yàlla yu matut wa hiya al qudduusu an jamii naqais mooy ci set mboolem manqué manqué wa bihi yalzimu taatilu al uluhiya wal uluhiyatu saamilun bi kulli zarra ci loolu yi tamit lañ war a sukkandiku maanaam li mu bëgg wax mooy buñ demee ba naram melale nelaw yàlla woowu aw manki manki ci loolu lañuy jaar ba hooyafal li nga xam ne mooy uluhiyatu yàlla ji te wal uluhiyatu saamilatun li kulli darratin ndax waaye uluhiya moom dafa matale maanaam moo xilis mboolem bindee te annal uluhiya ndax uluhiya hiya mooy uluhiya boo bëggee xam mooy lan nee na la uluhiyatu mooy almartabatu aljaamia almuxiita billahi taala fi jamii almawjudat mooy garaatab yàlla bi nga xam ne mooy li matale lépp te léem mbooleem mbindeefu yàlla yi léem mbooleem mbindeefu yàlla yi kon nag fama fil wujudi illa daaxilun taxta al uluhiya amul mbindeef buy bu yàlla bind lu duhut ni ñu ngi nekk ci suuf kilifteefu martaba bii di martabatul uluhiyya bil xuduwaay wa tazallul di ko toroxlul di suufeel boppam wal ibaadati wa tasbihi wa sujud di jaamo yàlla ci moom di sàbbal tay sujud mu ne falaw tanajjasat zarratun bu fekkoon benn mbindeef sobe la mbindeef ci mbindeef maa faxalaha an tatawajjaha li ibadati du wér ci moom mukk ñi maanaam ñi muy jublu yàlla ngir jaamu ko moom bindeef wa sujudu lahu wala muy sujootal yàlla wa tasbiha wala muy sàbbal yàlla ndax fa taharatu laab ji kaamilatun laha lu matale la ñexel ko min xaytu xiifatil uluhiya ci anam yi nga xam ne moom la ko ul wetu yàlla ji peege waaye ci beneen anam bi yi tamit mooy tajalli ismuhul quddus tajalli yi nga xam ne turam yi di quddusu def na ko ci mboole seen bindee fi fa haadi yet tahaara al asliya lii mooy tahaara cosaan bi kon doomu aadama yëpp a laab doomu aadama yëpp laab maanaam cosaanal doomu aadama ci laab la loolu nag boo ko waxee nit dina wax ni innamal mushrikuuna najis waaye loolu duñ ci wax léegi ñu ñëw ci kanam Mawlana Cheikh Tidiane radiallahu anhu dina ko leeral ba mu leer nañ wax ni wa maanaa tajalli ismul quddus li ñu tajalli bi nga xam turam yi wax quddusu moo koy def ala jamiiha ci mboole لولو وهو معنى تجلي اسمه القدوس على جميعها فسيطلب كيفية ذلك من لا فهم له من أهل الظاهر مولانا الشيخ رضي الله عنه tajalli maanaam tajalli boo ko déggee mooy feeñuwaay yi nga xam ne turu yàlla bi ñuy wax quddus moom lay feeñ ci kaw mbooleem bindee fi quddus mooy lu sell lu set lu laab mu ne loolu fa sa yatlubu kayfiyat zalika man laa fahma lahu min ahli zahir nga xam ne ñoo bokk ci ñoñ zahir te amuñu ak dégg-dégg amuñu fahmu dinañ la laaj ne la nan la qudduusu moom di defee tajalli ci mbooleen di ndefi wa kayfiyatu dalik moolana cheikh loolu mbir moomu ni demee mooy qawluhu sallallahu alayhi wa sallam ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngalee ne innama qaama alwujudu kulluhu bi asmaillahi zahirati walbatina yonent bi sallallahu alayhi wa mbindeef yépp ñi ngi taxawee ci turu yàlla yi feeñ ak ciy nëbb wa maana daalik xadis boobu yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam wax li mu wund mooy fama fi lwujudi darratun fama fawqaha man daqa aw jalla fardan fardan illa nbasata alayha nuuru ismin min asmaillahi taala wax jooju yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne amul benn mbindeef boo xam ne mi ngi taxaw ci lu duwut ni mi ngi taxawee ci turu yàlla yu feeñ yéeg yi nee na maanaay loolu mooy amul benn mbindeef ci kawnu gi mbindeef wu kawe wala wu suufe wu mag wala wu ndaw benn benn nag lu ni rek yàlla tàllal na ci moom leer benn tur ci leer ak tur ci tur yàlla yi maanaam mbindeef bu ne tur yàlla bu nekk tëbb na la walawlaa duhuru dalika nuuri alayha bu fekkutoon ak feeñak leer googu ci mbindeef bi wandi saatiha alayha ak tàllaluk leer googu ci mbindeef bi ah lama daara fi wujud konoon nekkitee fi wala batt yag payil adam dañuy def rek ci seen ñàkk fala yashtariku mawjudaani ci siin waaxid amul benn nekkte wala ñaari nekkteef yoo xam ne dinañ daje ci benn tur ci tur yàlla yi wala yakunu li darratin minha ismaani fi zaatin waaxid amul benn mbindeef benn zarra boo xam ne dina ràngoo ismaani ñaari tur fi zaatin waaxid ci benn jëm kon nag فانبساط انوار الاسماء الالهيه تلل كلار التريالي ظهر على كل ذرة من الوجود دفا فين سيمبولم ذرة سيمبولم سيت سيمبولم اتوم في نكتب عظيمها وحقيرها بكي مجأت بكي توت أه، فما في الوجود كله illaa zuhuru asmaihi l ilahiya bi anwaariha amul benn nekk teef ci nekk teef yépp lu duwut ni yàlla feeñal na ci yow e, leer ak ay turam mooy tur ak borom bi tabaraka wa taala wa bi wasitati zalika nuur ci leer googu ci sabab ak leer googu nga xam ne yàlla دفن کوچی او ظاهرت موجود دفن کوچی دبی فی ظاهرت موجود در سلا نکته سیسانی فإذا عرفت هذا أبو خميلي وعرفت أن الوجود قام كله بأسماء الله يقام من نتكته يب سينك صوتمي أدي تتوري علي والأسماء الإلهية توري علي وينك هي داخلة تحت حيثة الألوهية يم يب من تنكو في توفو كليستيفو ألوهية تبلا مرتبة الألوهية وكل الأسماء الإلهية بيب تورو تجلى عليها باسمه القدوس يالا دفن في تجلي في تورو بني تدي قدوس فإن القدوس نك قدوس من أسماء الذات من يبوك في تورو ذاتي فالقدوس قدوس نك تتصف به الذات جمي يالا جدف كوي ملو والصفات ملو يا الله يدكوي ملو والأسماء شرو يا الله يدكوي ملو كنك الحق سبحانه وتعالى قدوس في ذاته يا الله سبحانه وتعالى كسر رتلك جمم قدوس في صفاته كسر رتلك أي ملوم قدوس في أسمائه كسر رتل في أي ترم والوجود كله أعيان الأسماء نكتب جب أي جملين في تريوم وسر اسم القدوس موتم اسم القدوس متجل عليها لغيتان إنك تسير فهذا معنى تجلي في اسمه القدوس على آه، جميع الوجود لولو موي معنى تانيو تانيو كتر يا الذي بقدوس مول النكتر وهي طهارة الأصلية موي لاب جو خمن لاب التسامدة allati nga xam ne xul naa wax nañ wax nañ ko ci ci dar ci passé maanaam xéeféer gi moom laab ji la ànd ak jëmmam ji ndax cosaanam dafa set wa hada al kalaam min ulumi al aarifin malana Cheikh Tidiane nag nee na wax ji mi ngi bokk ci xam-xamu aarif yi laa madxala fii li ahli zahir ñooñ zahir amul dugg-dugg wala génn-génn moo tax luñ ci wax rek dañuy tooñ seen bokk loolu lu am solo la kon jar naa bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax mu ne wa ama tahaara al ardiya laab gi xam ne mi jëm ci li li la gaaral ci mooy laab ak tilim tilim hiya ma nassa alayhi subhanahu wa taala moom la suñ borom subhanahu wa taala yaxal fi shari shariam wa hiya qawluhu mooy waxam jim wax ni انما المشركون نجس نك بوكالة تتوالا يوم اي وقد دلت عليه الرسل من اتقاء الاشياء المتنجسة لول نج يرون في تكتل ننكوشي دي مويتا دي كمبير صدوي يعني المحكوم بنجاستها شرعا جرينا قمن شريعة دفع بي صدلا لا أصلا أنا شريعة كو دوت دود صدس عند العبادات xeetu jaamu yàlla yi fa inna najasataha aaridatun laysat zaatiya sobe googu sobe gu la waaye duut sobe su sax ci jëmm ji li annaha baqiyatun bi baqaayi sare ndax sobe ci dafay ndax eh, atte boobu dafay des fekk sariya ngi ci allati alladi yi nga xam ne huwa muqtada al amri wan nahyi sariya yi nga xam ne moo làmboog digle fa ida nafaq nufixa fi suur bu ñu walee bëft bi wa zaala xukma sharci atte sharia juge fi intaqalat al asiyaa kulluha li taharati al asliya lépp lu fi taqoon sobe lépp lu fi tilimoon dafay delluwaat ci laab ak cosaan gi kon nag fa sharcu aaridun sharia lu gaar la baqaauhu bi baqaai haadihi daar des ak sharia mooy des ak dëkkuwaay bii di àdduna saa yi fi àdduna jugee loolu jeex Euh, fa moo tax mu ne falam yabqa tasbih bu fi sariya jugee rek ngir yëpp dellu ci seen cosaan bu ko defee nag yàlla dootu topp seen jëf wa amma min xaqi man xaqa alayhi alazab man xaqa alayhi alazab min alkafara daal ñi nga xam ne nag yey na ci ñoom bugal dañ bokk ci way weddi yi fa innama huwa aradun fihim mbugal moomu gaar-gaar la ci ñoom wal aslu cosaan bi yàlla mooñaaleeg ñooñu mooy arrahmatu wal mahabba yërmandem ak bëggeelam loolu yàlla wax na ko sabaqat rahmati eh, magfirati sabaqat rahmati eh, adabi aw kama qaal sama yërmande moo jiitu sama mbugal Euh, fahum mahbubuun lool moo waral nag mahbubuun ñu yàlla bëgg lañ mahrumun wa in waqaa fihim ma waqaa kon da gis ni yàlla bëgg na leen te yërëm na leen doonte kat tàbbi na ci ñoom la tàbbi ci ñoom mooy ak weddi yàlla wax na ci alquran ne wa rahmati wasi'at kulla shay sama yërwaande yi moo matale ci lépp mu waxaat ni innama qawluna li shay'in ida aradnaahu an naqula lahu kun fayakun suñuy wax ci ay mbir lépp luñ namm rek dañ naan ko nekkal mu nekk kon nag fa in alkafara waqaat ala alayhim sifatu l iradiya irada boobu ñi nga xam ne ñooy yéeféer yi li tàbbi ci seen kaw mooy melow namm nammab yàlla wal kalimatul alim ak baatam bu màgg ba من الح... والكلمة العظيم أكبر بمجبة من الحق بتوكي في الله وهي كن تبار بومي كن كن بن يطلع وقم نبقى على دوري دايدال فما وقعت إلا على محبوب دوتاب دي مك لدهور تلين شب تلول موي مراد مراد لله موي نم نم نم نم في الله ولهم أن يلنا لنسعة الرحمة ياتوا يرمان دي الله allati wasiat kulli shay nga xam ne yaatu na ba tasaaroo fépp fa in waqaa fihim ma waqaa su tàbbee ci ñoom la fa tàbbi fa innama tilka ahkaamun loolu tàbbi fa ci xeet yooyu ay atte la yoo xam ne xii eh, ahkaamu innama tilka ahkaamu uluhiya ay atte la yoo xam ne mi ngi làmboog nga xam ni mooy uluhiyatug yàlla فما في الخلق كله من نعيم وعذاب وراحة وبلاء ورحمة وانتقام كلها كلها كلها بوب أحكام الألوهية المحيطة فليس لغيره سبحانه فيها شيء فالأصل حينئذ الرحمة والمحبة في الوجود والمحبة في كل موجود وعلى هذا الحد يتنزل قوله تعالى إن الله بالناس رؤوف رحيم warano cheikh radiallahu anhu ne lépp loo xam ne tabbina rek ci kaw mbindeef mi ngi tënku ci suuf ci gisteefu uluhiyatug yàlla bi moo xam xéewal la wala mbugeel wala noflaay wala balaa wala yërmande wala ak fayu lépp mi ngi bokk ci ahkaam ate yi nga xam ne ahkaam uluhiya la yi nga xam ne ñoo peeg lépp ci doomu aadama kon nag ci biir loolu ci ngay gisee ni cosaanal yàlla cosaanal doomu aadama bi maanaam mbëggeel ak cosaan ci doo ci yàlla bi wàcc ci doom aadama mooy yërmande ak mbëggeel ci bépp nekk teef loolu nag ci la yàlla wàccee inna allaha la raufur rahim inna allaha naka buur yàlla la raufun aji ñeewante la rahimun aji bale la binnaasi ñeel nit kon يرمان لي وو شاملة المؤمن والكافر دا فاي ماتل مؤمن دي كافر ديب لأنه من الناس بحنم تجيرني ملين بوك فهي الله وحنا نيو لقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير مما كرمنا تفسيرا يلا نيو ترال دوم آدم يب كو تي جيج جيج جير جي ورتجل كو واي جنالي كو تي مبولم جند ak gënalé go xamné ñun ñoo ko def ci suñu cosaan ci suñu suñu coobare boobu léegi nag buur euh, ne wa hiya saamilatul mu'min wal kaafir maanaam Cheikh Tidiane teraanga googu ak xéewal yooyu ngëneel yooyu yàlla def koy yemale ci jullit ñi ak yéeféer kon fa haada huwa al loolu mooy cosaan bi wa maa fi qawlihi jalla jalaaluhu wa azza kamaalu ak li nga xam ne làmboo na ko wowu borom tabaraka wa taala bi wax ni inna charra dawaabi inna charra dawaabi naka gën gi yées yées ci ab dabba ci ci ci ci loolu da ngay gis ni aaya bi li muy mooy cosaan ak doomu aadama mooy laa waaye borom bi subhaanahu wa taala mooy atte mboolem te jëlli bu ko soob mu def ko ci jaam bi ne la dina kafaru nag gaa ñi nga xam ni gëm nañ weddi nañ min ahlil kitaab te bokk ci yahud yeeg nasaraan yi wal te bokk ci bokkaalekat yàlla moom nee na ñooñu eh, ñu ngi safara soo xam ne dañ fay sax فطري متجلن في أولئك هم شر البرية مين نجينا بون كندين ديسي إنما هذه أحكام الألوهية ينك أي أتل يوقم برام برق موفشاكو ترات عليهم واتينا كتنيوم وهي عارضة تييب أي جار جار والأصل الأول تسان لنجك ليه مولين تبي صلى الله عليه وسلم وحني في تابع الوجود إن الله خلق ليون صلى الله عليه وسلم وحني تسان لنجك ليه إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ من خلقه اختار منهم بني آدم يلا دفع بند بند فمي يب بام باري سي بند بي موتان سي بند فمي دوم آدم الحديث بوير لا وهذا الاختيار تان غوغو نك من بني آدم مؤمنهم وكافرهم دا فاي ماتالي بولم دوم آدم مو خم سي جيم ولا سي وهذا هو الاصل المنتفع وهي المحبة والرحمة مهم بجيل ديرمان دي والتكريم دي كرانجا الذي دي نخمنا ذكره ذكر ذكره في الآية تدنك في آية والأصل وما ترى عليه بعد ذلك عوارد ستزول تسان لنك لبلو خمنا موكو جار دينا وهم لولو جار جار لرك وخمنا منا دج منا دج ويكون الرجوع إلى الأصل del maanaam jaar-jaar gi mën naa dañ ba jaam gi dellu ci cosaanam wassalaam intaha ma amlaahu alayna sayidna radiallahu anhu sujbihi wa rabbihi dinaañu xaraasin nee na li ñu suñu sëriñ dicté woon jeex na tàkk ci ay ci liñ ci wattu woon ak i baatam kon dars bi tamit foofu lañ koy yemale allahuma salli ala sayidina muhammadin fatih di maawre والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم